li ma mën a wax rek mooy gërëm d'abord le ministre de l'intérieur bi nga xam ne tey eh, gis nañu expérience am en deux mille vingt deux que muy élection locale yi ñu weesu muy les élections territoriales ak élection législative yi yaakaar naa tey ku doon wax élection du am Sénégal fépp élection am na fi te amul bruit amul yuuxu amul kenn ku si ne di nga dugg a voté boo voté ba pare nga dem toog sa kër. démocratie bu majeure lañu am au Sénégal ay citoyens yu responsable yu gëm seen réew yu gëm seen euh, dëkk fii nag bu ma fi ñëwee Gorom 2 dama fi am mbégte ndax fi laa juddoo fi laa yaroo euh, musuma fi ñàkk élection te incha allah tant que maa ngi soxla élection duma ñàkk élection Gorom 2 parce que je suis natif de ce village te loolu nag. Euh, dama ciy gërëm bu baax samay responsable man campagne ma te ren commune Bambilor ki def campagne mooy sama frère ñu di ko wax Libaas Libaas jërëjëf yal na la yàlla fay. yal na la yàlla fay xool leen dispositif bi ñu jël nii jël ay bâche teg bu naat naaj doon tàng électeurs yi dugg ci biir bâche sa prouve nettement que ñun préparé woon nañu lii lépp kon jërëjëf moo dugg ci dëkk bi wax ak nit ñi mais di gërëm bu baax sama frère Amadou Demba Diène moom it ci engagement. bi mu bi mu bi mu bi mu jël ah di ñaan yàlla rek bu 10 heures bu ma jógee fii damay dem wër quelque centres de vote rek su ma demee tëdd nga defaral ma temps ah. <laughs> ba 18 heures bàcc yi commencé ma bàcc gars yi non ñun duñ seeni i morom que réew du caaxaan réew du caaxaan topp mbedd mi nekk ci réseaux sociaux yi yaakaar na mooy tax ñu jox la réew mi dañuy nax seen bopp démocratie bu majeur la ñu am nit ñu responsable réew mu responsable la yor kon suñu réew dañ koy teg ci loxo yu wér euh, fi ma ci daanale mooy ñaanal sama jur muy ajaa Astou Ndiaye bi ma laan ñëw ci moom laa jóge ñëw fii dugg ci centre de bi tàllal ko samay loxo mu di ma ñaanal te mosuma ñaanal lu yàlla nanguwul kon lépp lu ma ñaanal rek yàlla dina ko def loolu daf ma gën a may motivation dafa ma gën a may ni courage que ne à partir de 18 heures Sénégal bàcc yi dina métti lool dina mu bàcc gaa yi bàcc mu métti ndax gaa ñi amuñu nit amuñu nit dañu yor mbooloo mais amuñu nit amuñu électeur te ñun nag benn bokk yaakaar dañu am machine électorale

nous sommes à presque 40 dans les bureaux de vote man bureau de vote bu ne téeméer bu ci si ñu inscrit ñeent fukk nañu à partir de midi donc si vous avez xoolee centre de vote Gorom 2 bi quatre euh, bureaux de vote nous sommes à presque 40 euh, de votants et le taux national ne peut pas musul ag lu 47 donc tay à cette heure bu 40 euh, ça prouve nettement que ne vraiment nit ñu ngi génn donc euh, rëcc bi mënatul am parce que élection bi mo gaaw ben bulletin la moo sama gars yi dañu juum quoi sama gars yi dañu juum defoon na ñaari vote la amuñu expérience politique waaw ndax boo dee militant ou kenn il faut nga tànn kenn ci ñaar seen ñaari liste yoy. mais nak yoy euh, ça prouve nettement que y a une démocratie au Sénégal Euh, démocratie boobu nag dañuy ñaan yàlla yàlla na bu ko dara yàq euh, bu ngoonee yàlla may ndam président euh, Macky Sall mu am majorité bu mag assemblée nationale te incha allah dina am. C'est la vérité. Il y aura cette large majorité. Dans les départements, on gagnera presque 80% des départements. Sur la euh, majorité, on va dépasser les 50%. Donc ça, c'est sûr. Euh, peut-être, si on parle de l'opposition, c'est la dispersion, madame, ni, ni, ni, ni, ni pouvoir, ni, ni, ni nous disperser au localité Nous avons envie de diriger. Mais si vous avez qui l'a fait mais qui mu fait teg la ñëpp andal parce que ce n'est pas la personne qui nous intéresse mais qui nous moo pour le développement du Sénégal merci